les internautes bu euh, Serigne ñoo ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare fu waaye moo nekk rek fekk nañ di leen ko daane bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, ci biir réew mi ak bitim nekk ci bitim réew yëpp tout temps ñu ngi topp euh, site bi di leen wax ngeen wéy di abonné tout temps bu ko defee vidéo bu ñu dugal ñu jot tey nag ñuy dalalaat Serigne bi dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu internaute bu Euh, six officiel ndax euh, jamono jii yëpp nag dafa xawoon a génn waaye nag euh, boobu ba léegi nit ñi di ko laajte sëriñ bi dellusiwaat na sëriñ bi ginnaaw na ñu nuyoo ziar la bàyyi la ak mu nekk internet bu sëriñ six officiel ñu dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahuma yaa munaawiru yaa fataawu naawirul xalbi bi nuuri mahrifatika tax li abwaaba hikmatika wa an turxale xasaayinu rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli bokk yu baax yi yéen yi nga xam ne yéenay bàyyi xel Serigne Cissé officiel ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal waq te di leen baal àq di leen ñaanal yàlla tawfiix ak sutura rawatina fii ci réew mii di Sénégal ak mboolem ñu nekkee diaspora bi fu waay mën a toll Mauritanie Gambie bàyyiwuñu fenn mm-hmm. Côte d'Ivoire ak Cameroun mm-hmm. bàyyiwuñu fenn mm-hmm. waaye fu mboolem doomu Sénégal nekk ñu ngi lay siyaara di leen dénk ne leen rek lañ bëgg ci paas bi ngeen gën a góorgóorlu ci abonné yi ñu ànd a yéen ci waxtaanu xam-xam sëriñ Saliou ñaan bismillah tubaarkàlla sëriñ bi nag tey dinañ euh, fasine waxtaan yu xaw a euh, fasantikoo dinañ ñëw ci li nga xam ne euh, ku la xam-xam la ak seetu loxo bi doon bari nga xeetu fànn seet yi ngay seet mm-hmm. euh, ndax euh, say seet bëri na bëri goo xam ne kenn mënu koo takk macha mm-hmm. waaye tey nag si seetu loxo bi la a ñëw euh, dañ ñëw si cat nañ ñëw tey li nga xam ne loolu nga tudd léegi di nuyu bu baax a baax ne ñoo nekk ca diwaanu Côte d'Ivoire di fa mm-hmm. a am ne mooy Côte d'Ivoire mi nga xam ne moo organisé sax danañ ci ñëw danañ li nga xam ne tey ji mooy mbirum li ñuy ubbee mooy seet seetu loxo bi jommal na Sénégal ak bitim réew boo ci doon dikkaatal tey lan nga ñuy wax seet loxo bi jërëjëf saa Saliou malade pour ñu faj ko. il faut nga xam ban jàngoro moo ko daal. foo consulté ko. consulté ko mm. sama sang ba Serigne Mansour borom daara ji day wax ne mm. dafa waxoon ne nit ku mën a doon ci àdduna mm. ak ku mën a doon balaa ngay dugg ci ay mbiram xamal moom mooy kan. malaat nag bu fekkee ne dañ la ko indil te xamagu la ban façon feebar moo ko dal nga jël ay risque ne mën nga koo faj waxu la dëgg. te yëfi nag bul topp sa bànneexu bakkan ba dugg ci loo xam ne bakkan bakkanay tax nga dugg ci sëriñ si sumu sëriñ Babacar ne émission bu ngeen gis may waxtaanee ci fii laay jaar ak yéen képp ku bëgg sëriñ Cissé liggéeyal la ak koo mën a doon moo xam nga nekk ci réew mii di Sénégal moo xam nga nekk ca bitim réew ak fu mën a doon yow mi nga xam ne danga am sa soxlaay bopp bëgg a xam nan ngay def ba soxla yi aw yoon wa nga bëgg sëriñ Cissé na dañu lay seetal seet gi nag benn fànn kese la liñ jàng ci xam-xam bari na waaye waxtu wii nag li ñuy seetee mooy sa loxo droit bii ngay photo yónnee mu ko man sëriñ si sama sëriñ kër si ba fekkee ne sa wàllu liggéeyukaay la nga bëgg caa xam baax naam baaxul fotol sa loxo yónnee ma bu dee sa wàllu mbiru sa soxna la wala koy bëgg la wala sa mbiru këyit la lépp nga dox ci xamoon nan ngay def ba sa wàllu wërsëg wala sa yaram dafa am liggéey wala lu mën a doon bëgg koo xam sëriñ Cissé ne baa may jël dara ci yow dama lay seetal ba pare te seet gi lenn dong la fotal sa loxo droite bi yónnee ma ko sëriñ Saaliw mhm. ñu xool mbiri lu ca nekk ñu wax la ko ndax jàngoro boo ko xamee rek pour nga faj ko day day yomb waaye boo xamul jàngoro ji jan xeetu jàngoro la pour nga pour nga faj borom du yomb da ngay làmbatu mhm. te te te làmbatu wuurul rawatina ku yëkkati dara di la ko jox mhm. kon làmbatu wuurul yéen ñi nga xam ne da ngeen a nekk ci fu mën a doon ci àdduna sëriñ Cissé ne wax ji bu fekkee doy na la rek toogal fa nga toog woo ma ñu waxtaan nga foto sa loxo droit yónnee ma ko loo bëgg a xam ci sa bopp di ko xam Serigne Saliou macha allah macha allah mm-hmm. kon nag ko dégg loolu képp koo xam euh, li nga xam ne mu nga weesu fi ak nga jëm mm-hmm. euh, bis boo foto sa loxo euh, ndeyjoor bi yónnee ko ko mm-hmm. ci dana la wax wax la wax a wax ba wax la du ñëwgul insha allahu taala ndax ñu ko ñu ko jot def moom xam nañ ci dara sëriñ bi sax temps bi nag bëgul waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne moo solo ñëpp ndax gis nañ ne koo gis fi mu ne nii danaan la mën yoruma damaa feebar. Hmm. Euh, boo ñu doon diggante si cat ndax dégg naa cat dina jàpp ne ba tëral ko feebar sax ba muy sax tam tiim nit sax naa ko diw moom lekk te fekk cat ma ko jàpp. waaw mag ñi ndax man benn référence laa am mooy mag ñi. Hmm. mag ñi dañuy wax ne àdduna ñaara fi ne. Hmm. làmmañ wu aay dafa am. bët bu aay dafa am. aay bi mag ñi fonk ko lool muy wa in yakaadu la si ne kafaru liyasliqunaka bi absaarin lammaa samuu sikra wa yaquluuna inhuwa la majnuun wa maa huwa illaa zikrun lil aalamiin mag ñi fonkoon it law anzalnaa haazaa qur'aanan alaa jabalin la ra'aytahu xaashi'an ba ilaa aaxiri mag ñi dañ daan wax ne boo demee ba te ayatul kursi yu bu la neexee man nga ko defee façon bi yaa huwa yaa hayyu yaa qayyuumu mag ñi nañ ne bu fekkee ne làmmañ dalaa topp ndax ñu bëree ngi échec ci àdduna làmmañe leen échec loo mhm. ñu bëree ngi demoon ba jàpp dara mu rëcc leen bëta leen échec mhm. te ñaar ñii nit ñi dañ koo ñemee rawatina ndaw ñi mhm. damay wax ni nit ki pour nga yegg fa nga jëm dangay fexe mucc ci cat nit ñi nag liñ gën a ragal dañu laa liggéey liggéey ci doomu aadama dana de am waaye yombut waaye bu jàppoon nit ki la ko toju noonu lay yombee mën ngaa nekk fu sori ci àdduna ñu xool sa yaram wi gis ne liggéey da cee ne Serigne Cissé mu Serigne Babacar ne boo defee lii liggéey ba newoon ci sa yaram wi dañ waaye cat day jàpp doomu aadama ba alal jum dem dajale ba war cee def farata alal ja tasaaroo mu dem jël benn magasin chargé ko magasin bi demoon ba commencé yéeg bagage yi commencé di yàqu wala dem jàppanteeg ay nit ñu baax dem ba xelam commencé dal mu xëy xëy di yàqu yii làmmeñ da koy def ci doomu aadama muy mbirum cat kon yow mi cat jàpp Serigne Cissé mu Serigne Babacar yaa ngi may seetaan kàddu yi doy na la woo ma man sëñ Cissé mu sëriñ Babacar ma wax la ay tegtal yoo xam ne boo ko defee yàlla musal la ci làmmiñ ak sarax yoo xam ne boo ko génnee yàlla dina la musal ci bët bu bon ak làmmiñ ñu bon insha allah dem soob yàlla sëriñ Saliou. macha allah mm-hmm. loolu sax ay tënk rek ndax euh, lépp lu ci xaj du lépp lu ci bëgg a du ci xaj hmm. ndax cat moom li muy dafa bari ndax euh, waaye a yaa ngi suivre gaynde yi ñoo ngi ca Côte d'Ivoire hmm. euh, di yëpp hmm. ñoo ngi tiit nag Euh, en tant yow yaa ngi seetaan en tant que li nga xam ne yow a jëm mhm. ak Côte man nag dafa am lu ma faral di wax. Mhm. man Serigne Cissé mu Serigne Babacar. Mhm. borom kun moo man borom kënu. te li ma bëgg yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo ma ci doy. keneen ku ma ne doy nga ma ci dama lay nax. réew mii nag fi laa dëkk. toogoon naa fii ma wax Serigne Lamine Seck. waxtaan ak moom bu lit TV hmm. ma ne ko nit ku ne boo ko bëggee dimbale da ngay fexe xam ay mbiram xam am hmm. waaye moom mu a toog muy laal Diop avant muy dem dama ne moom bu bëggee am ndam na foto loxo droitam yónnee ma ko. mooy ministre des lay dégg. mu ngi ñuy mu ngi ñuy bàyyi xel. Hmm. waaye réew mii nag fi laa dëkk Sénégal li ci boole ñëpp ma ci boole mooy drapeau bi. ku mantu yéegin man a bës ku daanu nag. ñoo ngi leen di ñaanal foofee ñu nekk ca senegaal ndam de yàllaa ko yor. te moo koy joxe yàlla na yàlla siggil ñu altine ci darajey Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Serigne Cissé xam nga lu man laaj jo fa mu nekk yéene naa ko mu indi coupe ci réew mii ndax bu ko indee ñoo koy bokk li ma man nag mooy ñaan te maa ngi ñaan li ma man mooy génne sarax te maa ngi koy def ànd kook ñoom ak ku ma amit dugal naa la ci mbir mi ak kuy Sénégal ak ak noo mën a ñaanee na nga ñaan ndax yàlla defal nu suutura ci kanamu Côte d'Ivoire Ivoiriens yi daal na ñëpp toog rek na ñëpp toog loolu rek ci sama wax maa ngi leen di ñaanal gaynde yi yàlla roof leen kàttan ba ba bu lëndee jàmm ñu gañe équipe bii di Côte d'Ivoire euh, yàlla dimbale ñu bañ mën a am coupe yàlla yomb na yàlla yàlla yàlla defal ñu ko ci barke yonent bi bismillah jërëjëf sëriñ bi mbokk añ nori bu ba léegi ñoo ngi leen fàttali ñoo ngi ànd ak nga xam ne mooy euh, sëriñ Cissé bu sëriñ Babacar euh, sëriñ bu ñu jógee ci loolu nag mm-hmm. ñëw ci li nga xam ne nag lu lu récemment la xew. Mm-hmm. Euh, bu ko defee rek foofu la ñuy jaaree ki nga xam ne mooy euh, njabootu famille Seckeen yëpp. Mm-hmm. mooy famille Thione Seck ñu leen di masaw di leen jaare ki mm-hmm. nga xam ne mooy suñu yaay jaaga. Euh, di nekkoon soxna ci Papa Thione waaye nekk ci waajur ci Wally Ballago Seck moo ci gën siw tey jii nag mu ñàkk bakkanam waaye ginnaaw ñàkk bakkanam gi. ñu gis yeneen yi ci am ñu si a àdduna nga naan la rey mu ngi biir kër gi te buñ ci jugut ba léegi nit ñi dinañ ci eh, gën di faatu eh, tey ji en tant que yow boo boo déggee loolu kilifa gu toll ne yow nga dégg loolu noonu eh, loolu loolu ci baaxee. waa xam nga ku ko xañ na xam-xamam amul xam-xam mm-hmm. ndax la ko rey mu ngi ci biir kër ga mm-hmm. loola wax joojoo wax jooju wax jooju wax ko yàq la mm-hmm. ndax borom bi subhaanahu wa taala mooy rey mu ngi ca biir kër ga. dëgg la sëñ si sa jëliwut fa jaaga. yàlla borom bi subhaanahu wa moo dem ca kër ga doxee na ko neex ndax borom bi lim njëkk bind dee la njëkk bind mm. ka kon yow boo bëggee génn ne li rey jaaga gàllaaj la du gàllaaj mm. yàlla moo rey jaaga moo ko indi woon ci jamono moo ko rey yàlla daal lim jël lu moom moom lim moom alalam la jëli mm. kere bi nga déggee ñu naan ruuyi naan xaaloo ballee ñii di gane jamono ñii a génn àdduna ñii dañuy dugg ñii di génn. kon boo bëggee perturber nit nit daal du perturber te nit day may boppam day may boppam fayda. Mm-hmm. Wally citoyen la ci réew mi la dëkk. woy juróom wàcc na liggéey mm-hmm. fexeel rafet ci bul ci ñaaw. Mm-hmm. ndax ki ko jël si borom bi la subhaanahu wa taala. yàlla nee na man deelaa laa njëkk bind ko dund. kon nag bu ñëwee jël si la. bu ñëwee jël si la na xam sa bopp waaye bul ci jéem a ñaaw. yàlla mooy rey. mooy dundal mooy dekkal kon dafa am lenn ci ay sëriñ ñàkk a xam seen boppale ni yóbbu ci yenn yi di may oyaas ci nit di dugg ci sa jëmm di la wax loo xam ne weñu ci dal waaye luñ la laajut wala luñ la seetloowul loo ciy gis ba ciy wax bëgg bës rek bëgg bës bëgg bës nag kum dugal ci yenn yi da nga dégg lu la naqari sa yaay di ko dégg sa baay di ko dégg say mbokk di ko dégg say xarit di ko dégg te doo ci man dara émission bi sax nañ ko nañ ko yemaleegum fii ndax dafa ci am yoo xam ne sëñ Saliou kenn xamul lan la kenn xamul lan la nit da ngay am personnalité am dignité xam yow yaay kan yaa ngi dégg kon nañu yemale foofu kàddu yi nga tëj wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf